benn góor bu amoon ñaari doom ku gën a ndaw si ne baay bi nag ma jox si xaalis bi ndaxte yaa ngir laata dee ji séddoo leen xaalis bi xale bi jël bosom léegi mu gàddu yépp ndaxte day dem ba fu sore fumu doon dem ñu soxor rekk la fa fekk xarit yooyu seen dund moo di yàq jabar jàmbur ak di naan xaalisom bi jël na ko mu jëndee ko ay yére yu baax léegi mu am benn bés amatul xaalis mu am xiif bu mag ci réew mi moom ci boppam xiifoon na bu baax mu am benn góor bu ko jël liggéey pour sàmm ay mbaamam liggéey la boo xam ne kenn buggu ko mu ngi xiif ba bugg lekk lu mbaam yi di lekk léegi mu na xalaat mu ngi doon wax ne suma baay yore na ay jaam ñooñu yépp am nañu lu ñuy lekk te man maa ngi dee ak xiif léegi dinaa dellu si suma baay ma wax ko baay am na baakaar si yàlla ak si sa boor defkati baakaar la bul ma woowati sa doom waaye nag ma def sa jaam xalaat na ba pare léegi dellu na si baayam bu mu ñëwee ba mu tiim kër gi baay gi séen ko baay gi daw dem gatandu ko te fab ko fóon doom ju bon ji ne baay ji léegi def naa baakaar siboor boori yàlla ak si sa boor bul ma wooti sa doom def kati baakaar la waaye baay ji xalaatul lu ko doom ji wax si saay si mu woo jaam yi indi leen mbuba bu gën a set te ngeen solal ko na ngeen gaaw na ngeen ko solal jaaru si loxo solal leen ko ay dàll te ngeen dem rey nag bu ci gën a rëy tey dinañu def feet bu mag bay ji ne leen suma doom ji gaañoon na waaye léegi dellu si na si àdduna suma doom ji réeroon na waaye léegi gis naa ko Yeesu wax nañu histoire bi pour woon ñu suñu takkandeer mu ngi mel ni ñun yépp ñu ngi mel ni doom ju bon ji waaye suñu boroom bugga nañu ndax ñu dellu si si moom doom ju bon ji wane na baakaaram te dellu na si baayam ñaan na baayam ne dootu ko defati waaye baay ji gërëm na ko ci loolu te baal na ko ci kaw loolu suñu borom bugg nañu bugg na ñu dellu si si moom suñu borom benn yoon rek lañu jox pour ñu dellu si moom joxe na yéesu pour mu dee si suñu place tey ñépp mun nañu nekk si yoon buy jëm si suñu borom moo di bu ñu bàyyee suñu baakaar war nañu xalaat bu baax si suñu baakaar yi le yàlla jox nañu ndigal bu mag képp koo xam ne oona turu yéesu dina mucc si bésum àtte bi si àdduna si fii amul tur ci loo xam ne ci lañ war a mucc ñu ngi leen di wax tey ngeen ñaan yàlla mu baal leen na ngeen gëm ne yeesu gaañu na pour yéen oo leen tuuri yéesu suñu borom dina leen uyute baal leen